Liyeje ikabilandi damin container to donc a bagasol siyata a kaaba kuyaata lu ma jógee wax rek si soose mooy dagg garab yi ñu nekk di dagg Casamance loolu lañ nekk di xeex donc il mu dagg ndaxte maa ngi gàmbi nii wane entreprise yoo xam ne ñoom si loolu la ñuy yëngu garab yi tronc d'arbre yaa ngi nii ngeen bi gis bëri nañu ñu yor seen tronc d'arbre yi di dagg garab yi di ne garab yi te gàmbi amul forêt te ay entreprise la yoo xam ne dañ leen samp fi Gàmbi di dag suñu garab yi di trafiquer suñu garab yi suñu jógee nak ñuy wax si yenn yi lu ñaaw lu dem ni suñu suñu côté tay ñun suñu waxé ñu ne leen wala ñi ay rebelle la ñi je ne sais pas quoi tay yépp ay fen la donc vous il faut ngeen gis réalité bi lu fi xew légui dañ koy duggal sen conteneur su conteneur yoyu nak loolu lañuy ñuy parce que ce sont des indiens ñu fay liggéey dañuy laxatu suñu gisee donc euh, sorry my friend dañuy dañ fay liggéey pour ñu xam mbir yi parce que tey soo ko buggee laaj rek dañuy daw kii mooy seen beneen boos mi ngi laxatu bëggul sam pour ma filmer ko soo donc euh, gis nga ñoom dañuy daw parce que lu ñu def moo dul yoon du ñu dagg garab seen dëkk ñu koy dagg suñu dëkk du koy dugal seen dëkk te loolu nag moo moo moo jaarul yoon ndaxte lu ñu doon xeex jemme jemme jamono jemme pour garab bu mu fi dugg léegi loolu la ñu gën a ndaxte garab yooyu dañ koy dagg ñu dugal ko seen conteneur yóbbu ko seen dëkk donc euh, di trafiquer garab yooyu muy gën a Casamance. donc euh, genre entreprise yi nag bëri na fii si Gambie donc maintenant euh, xaar leen moo won leen luy luy luy beneen entreprise bi fu mu fu mu féetoo léegi nag xaar leen waaye la ma tuuti rek ma won leen. miri, yi pour ñu xam réalité bi lu parce que y a que des bandes de trafiquants d'arbres ñoo xam ne fees nañu fii dal si Gambie donc euh, di dagg suñu garab yi te nguur gi na si entreprise taxawal d'accord na donc lépp lu ñuy génnee du ko yóbbu port ndaxte xam nañu port nguur fa ndax loolu si loolu donc euh, il faut ñu yëngu dénoncer l'injustice bo xam ne mi ngi am su suñu àll yi donc euh, voilà mais le mot benn seconde rek mo won len ci ginaaw fi ci ginaaw euh, nu mu nu mel dama wër entreprise bi pour ngeen gis ci ginaaw entreprise bi vous voyez conteneur yaa ngi nii di di préparé wu léegi maa ngi si entreprise bi léegi xaar leen ma wàcc suma oto ma won leen parce que bii benn exemple la rek pour ngeen gis léegi sen conteneur yaa ngi nii taxaw fii lañ koy dugal pour yóbbu ko ci port bi donc à partir de fi, la ñuy jël yóbbu ko ci port bi jaay ko l'injustice bo xam suñu garab yi Casamance ñu leen di garab moo yor dundu doomu adama. garab moy tax dëkk bi garab moy tax taw garab moy tax nit ñi dem ñu les garab yoy suñ ko am dara dara dara lo xamné dinañu dundal dinañu malgré que Macky Sall ak régime nous ñi ngi pauvreté bo bu reuy surtout biir surtout Sénégal donc nous mo ñu di saccager suñu suñu suñu suñu camion yaangi il yu charger ñeneen yi déchargé pour vous pour ngeen gis entreprise bi la nek ci ginaawam La photo di filmer des troncs d'arbres conteneur baa ngi fa gis ngeen feulé moy conteneur bi fu mu arbres arbre yaangi ni camions camion yaangi nele kanam donc euh, vous voyez il y a que des arbres yo xamné dag nañ ko Casamance la jógee donc euh, voilà donc entreprise bo il est légalement planté en Gambie il emploie des employés ñi liggéey des jeunes ñi liggéey di dag suñu garab yi vous voyez des troncs d'arbres beaucoup d'arbres ce sont des étrangers indiens lañu

fi lañ ko garé ñom fi lañ dëkk ci kaw fi moy seen kër ñom garabi lañ dëkk donc fi la jëlé garab yi garab yaangi ni fuñ ko déposer ngeen gis ko auto baangi ni di liggéey di yobu garab gi moy transporter légui nak pour ngeen xam mbir yi fu mu tollu ñu xam réalité bi ay camion yo xamné ñom goudi ba goudi lañuy yëngatu di andi suñu suñu suñu suñu trondar bi gis ngeen say la bëgg naa nag image bi ngeen gën a ko publier ba ñëpp xam lu xew ndaxte lii gàcce la lii sab du dëgg du yoon du dëgg du yoon dañuy nekk di rey di andi ndóol lépp loo xam ne day rey suñu suñu suñu dëkk boobu on dirait que Macky Sall ak allié bon bu ma nee allié bon ay président Wajman wala ay président yoo xam ne marionnette lañu donc ñooñu dañuy taxaw temm pour rey Casamance donc lii mooy preuve bi entreprise yoo xam ne. dañuy nekk di xeex pour bu ñu dagg garab mais ay entreprise yoo xam ne ñëw samp Gàmbi di dagg suñu garab te ñun xam nañu Gàmbi amul forêt xam nañ ko bu baax a baax a baax baax donc euh, y a des centaines de centaines de preuves yoo xam ne mun naa leen ko woon pour ngeen gis ni lii firnde bi nu ñu mun a bay garab yii di dugg te ñoom ñu ne yëguñu si dara nu ñu mun a bay loolu ba pare entreprise yoo xam ne xam nañ nu ñuy sampee entreprise xam nañ ko te nguur gi moo leen di mooy loolu donc Si fi jógee nak ñom garab yi day dem seen réew donc port lañ koy awé té port bobu xam nguur mo fa né donc dofuñu bon loolu euh, di Nous di condamner genre action yi ngeen gis leen ngeen xamé donc euh, voilà réalité la triste réalité donc si loolu nous nous di dundu. donc euh, voilà hein bon jërëjëf jëf gaay ba si kanam ma baye ma yam fi quoi parce que suma xol xol bi mënutul lu ma nekk di gis te chaque jour damay gis lu bëri fi ci Gambie tous les jours te lu suma laaté ñu ne leen garab bi dañ may ne carrément garab bi Casamance lay joggé te sen camion yi seen lepp du koy transporter so waxé ñu ne fi ben garab du fi duggu garab bi fi nek lañuy utiliser ay fen la lepp fële lay joggé donc man lu may ñaan lu may ñaan moy